ah sommes gis kat ñuy sot sama gaay ma ne ah de borom jom comme équipe bi benn la ñu ñëw rek renfort mais surtout dama ci seetlu question yu am am ma bañ nag ci conclusion yi am ndax nag tey wax dëgg neex yàlla dama seetlu question yëpp dañuy rester ci biir sujet bi muy intéressant nag moo taxoon ma ne ah ñu def ko rek comme à chaque fois bu ñu question mu public bi ne jàngaloon nañu ko yaa ngi ñuy tuddal ci bokk bi laaj ndax l'intention vaut l'action yaa ñu waxoon jàngaloon ne euh, le chemin de l'enfer est parsemé de bonnes intentions loolu moom moo nekkoon question est-ce que yéene bu nekk rek doy na pour nga bañ a jëfati waaw yéene naa takk soxna yéene naa am doom dafa tax ma am ko

ak jëf yitté moom moy jur résultat waji nak moy bo boo indee gu jaar yoon indi action bu tolloowul ak yéene yi est-ce que résultat ba du am malformation loolu rek la. benen bi mu ngi laaj ndax intention pure mën na am dina xaw a niroog li philosophie di tuddee acte désintéressé.

forme bi nga war a structurer ñaan gi respecté woo ko yéene gi lu mu rafet rafet bu egsee ñaaw looloo tax yàlla courrier dañ koy prier dafa am loo xam ne xam nga fan yi passé ñoo ngi koy waxtaanee ñu indiwaat question boobu ñu posé woon Serigne Babacar arsa kursi yu bu ëpp mais ban moo fi bàyyi moroomam arsh bu ñàkkee du tey kursi yu am waaye est-ce que kursi yu bu ñàkkee arsh dana am

dafa yitte ba nekk te mooy góor gi jàngale nañu ko yàlla nee na kii toog tàllal ay loxoom ñaan kooku jaaxaluma ki taxaw ba pare am a jaaxal mais doon na jàngale ki nga xam ni yamul ci ñaan dafa jóg def yitte mais balaa yàlla di faate ki ki ki taxaw ci sajaadaam wala boog ki toog ci sajaadaam mu faale kële ba pare noonu rek la toll beneen bi abu naa la ba léegi mu ne ndax gannaaw yéene bu sell jëf bu sell ndax mën naa yàquwaat ba éclat am mu jur froissement mu ne gannaaw yéene bu sell bu amee ba pare ba jëf ji sell ba pare mu ne ndax yiw boobu mën na yàquwaat ah loolu de góor gi jàngale na ko moom ndax moo waxoon ni nga ñëw ci jàkk Ili rawee la ñaari rakk moom mu julli julleem sëlmal mu dese ñaari rakk defete fi lu yàq sa jullee est-ce jarati na ko rek doy rek gis nga amul lu nit mën def parce que xam nga ñoo ngi koy du problème lan nga yéene du problème lan nga def problème mooy ci diggante li nga yéene ak li nga def li fi def processus bi lan ak lan la parce que loolu yëpp lay comptabiliser lu mu la ci war a amende amende la ci lu mu la ci war a récompenser récompenser la ci kon nag boo fi defee loo xam ne yéene beeg jëf ci lu mu baax baax li nga fi defaat yàq na ko yàqu na day mel ni tey jii nga ne da nga am sa compte bancaire nga xëy suba teel ñu fay la sa 300000 300000 ba ci ngoon nga nga jënd télé wu 450000 foo jëm ma ngoon <laughs> beneen bi mu ne ndax yéene acte la walla résultat yéene ñaar yëpp la ndax yéene mooy accompagner acte waaye mooy rafetal résultat loolu rek la <laughs> beneen question bi tamit moom moo ko laaj waaye soxna Sophie laajaale na ko mu ne bu fekkoon dañ koy wutal barab ndax ci xel lay nekk ci xol walla ci ruux moom yéene <laughs> yéene

yéene du lu dépendre ci xol dépendre ci xel dépendre ci leneen ensemble yéene boo ko xoolee expression noyon humain bi la wala bu xeetu expression la xam nga tey jii ni nga amee euh, dioxyde de carbone bi noonu le noyau humain bi di amee yéene c'est-à-dire que dioxyde de carbone bi preuve am na lu am jëriñ la oxygène bi li mu war a jëriñ jëriñ na ko lii nag mooy wane ni jot na fay jaar gis nga bi même chose la synergie bi am ci ñetti dimension yi mooy tax yéene goo ci mën a wax ji nag mooy léegi qualité synergie et ak qualité produit bi est-ce que yëpp a tolloo ay degré la. <laughs> question aussi Nirona na ak question wu njagameng bi bi mu wax ne euh, yéene bi. Hmm. lan condition lan moo koy conditionné ndax day jóge ci nit ki day jóge ci ci ruuxam wala dafay jóge ci société bi source bi waaw xam nga <clears throat> yéene mais xeetu yéene yi bëri na xam nga moom lay rey sànq bu ñuy wax pratique rituelle dama seetlu ñu si bëri dañoo daanu ci piège bu ñu nee rituel xëy suba teel sangu rituel xëy brosser bañ rituel xëy ndékki rituel la ku ci nekk ak sa rituel wax ji mooy mu nekk lu rituel taxul yàlla dugg ci nit xëyal suba teel ba guddi nga julli heure bu julli nga julli sax teg ci naafi la taxul yàlla comptabiliser ko lan moo tax est-ce que yéene ba mu war a àndal ànd naag moom mooy noonu moo tax du rek problème mu fan la jóge problème mooy yéene gi ci boppam lan la xam nga tey ji mu wóor la ne da toog Sayaram yaram sa jëmm ci boppam nga yëg ni dafa yéene jóg taxaw julli et pourtant boobu est-ce que sa xel yëg na est-ce que sa ruux yëg na yaram bi rek am yéene bi dem moo tax li ma wax sànq yéene bi dépendrul ci benn ci ñett mais au contraire ci ñett la dépendre ndoo euh, am na question bu mam As muy laaj sarax bi nit ki di def lan la mën jot ci dundam walla ci bakkanam tour deret tudd na sarax maam as tudd na sarax ba tudd aay bi xus min amwaalihim sadaqa muy laaj loolu lan la mën a jot ci bakkanu nit ki xam nga sànq da ngeen fàttali tabaski xam nga tabaski dafa am lu ci sëriñ waxoon mu ne xar xar boo ko gënul waroo ko rendi lu jara jàng la lan moo tax yindi ngeen ko sànq échange équivalent la xar bi ñu tër rendi ko dafa am bakken bu mu jënd mais loo ni bakken la jënd nga rendi ko ba pare wëlbati ko di ko lu ni tabaski buñ koy tudd lekk xar taxul julli tabaski leen nay jëriñam bañ ñu comptabiliser bàkkaaru lekk xar bi ndax xar googu ci bés boobu valeur yàppu nit la am valeur yàppu nit la am moo tax li mu mën a yàq ci ne yëpp mu mën ko mais waxuma la sax lekk xar bi est-ce sax est-ce que sax rend bi war na ndax Ibrahim ba muy rendi am na lu fa jaar mais ñun est-ce que jaar nañ foofa ndax tabaski ku ko bëgg a yemale ci xar rek da ngaa yab yàlla lan moo tax c'est très yan élément moo tax ñu tudd tabaski yonent yàlla Ibrahim yonent yàlla Ismaïl Jibril soxnaay Ibrahim xar mi doog a ñëw muy cinq élément élément ben bu nek ci def ci am jikko jo xamne motax yàlla tuddu histoire jikko joju nak fek nit ki mënul fexe ba jurom yépp mu maîtriser ko dund ko te faratal ko amul droit laal xar ci yoon amul droit laal xar bi ci jitu Ibrahim dafa signé contrat waye ba mu signé contrat ba pare mbaxu yàlla bëgg ko ëpp doole te mooy foofu xelam ma ngi ñaari xel nangam laa waxoon sama borom de waaye moom ku baax la est-ce que bu ma ko ñaanaatee du ma ko du ko may loolu mbaax yàlla ma ko doon bëgg ëpp doole waaye ngorom ngorom ak dëggoom du ko ko may bu ko yàlla mayoon sax du baal boppam kon nag dëggu googu lu war ñëpp la Ismaayil bu dul woon dara sax lim ko wóor ni baayam Ibrahim lu mu ko mës a wax teg na ci bët lu mu ko mësa wax dëgg la kon nag bu xëyoon sax wax ko loo xam ni moom wóoru ko mu war koo wóolu ndax mosu koo nax nangu googu lu war ñëpp la soxnaay Ibrahim moom it la même chose mais fii doo ko tuddee nangu doo ko tuddee nangu tey nga koy tudde ndax ñaar am na muy ismaïl di ibrahim xam na ni ay borom cër lañu kon nag lu ñoom ñaar àndandoo ne lii dañ koy def mu war cee teey nga xamagul lépp waaye xam ñaar ñii kon nag dana jibril nag soog a ñëw te man ci sama analyse bosom sax gën a choquant ndax lan moo tax fi ñëpp defee li ñu def moom ñàkk def li mu war a def moo tax ñu tudd ko ci histoire bi ndax balaa yàlla di àddu waroon na xam ni valeur bakkenu Ismaël war na dem xooli lu ko remplacer gaaw kon nag moom dafa nangoo dabaatal dabaatal googu moo tax moom ñu tudd ko ci biir li muy doon doon malaaka def na erreur ba yàlla fàttali ko ko moo tax mu gaawantu gaaw dem jëli xar gi mais xar gi ci boppam mais xol len rek xam nga ñoo ngi wax sacrifice mais fingo fi nga koy déggé sax lan moo tax c'est très simple xar gi tey ji dafa am choix mu tok rek ci fa ko yalla denc ko koote nek fa nek ci ngoñ gek ñax gek yi ci des ba njëriñ la koy amal way mu wóor ko ni tey ji mu joxe bakkanam yalla jaarale fa xéetam ñepp ku ci déwoti mu am la garantiral sacrifice bobu mo nango def moo tax loo ci gis ku si nekk sa xaru tabaski li ñuy wax moom moo lay jéggiloo siraat lu ko lu leen may loolu sacrifice bi mu nangoo def la moo tax gis ma juróom ñi jullit bu ko matalul boo laalee xar bàkkaar nga te sax ngeen baal ma foofu dama bañ mu rëccaat ma xam nga fii ñoo ngi tudd ci cadre tabaski xam naa sax tey moom

waxuma la ko dugg si ci jakka ji amul ñap waxuma la ko dugg si ci jakka ji sanguwul set waaye ki dugg si jakka ji te fekk sax muy bu Imam bi kabaré ba da danaan ci yol ga imam bu jaar yon la wax te ci lolu ngay jangate yu bari ndax xam nga ñogi wax ñogi wax sey ñogi wax ngenté mais bi ma ci gën a reeloo sax muy sëy Sénégal wax dëgg neex yàlla yenn saa yi da ngay toog xam ne c'est théâtre général ndax boo seetloo sëy lan la ñuy wax dañuy ñaan yàlla yàlla sëy bi bokk si ñu si ñuy fasee charge et pourtant sëy bu ñu fasul charge yàlla reconnaître ko sëy bu ñu fasul charge yàlla reconnaître ko kon nag. est-ce que foofu sañ nañ wax ni sëy la ngir yàlla wala sëy la ngir nit ñi bu fekkee sëy la ngir yàlla bu ko nit ñi reconnaître rek reconnaître duñ ko yàgg la yàlla reconnaître na ko yoonam ne ko ci nit ñi xalaat waaye nag bu fekkee sëy la ndax nit ñi te yàlla reconnaître ko nag bu ko nit ñi nangoo yàlla nanguwu ko bés bu ñu toogee ñoom ñaar ñoo ngi ji kenn ku nekk

xam nga am na lu wolof di wax ni nit koo ko tuddee dana jël ci moom juróom-ñaari jikko waaye ku la wax ne jikko yu baax lay doon bu ko bu ko intérêt lalee dana jël ay jikko moom nga doon benn bu la gën a <laughs> mais est-ce que loolu ñoo ngi koy bàyyi xel mais loolu sax am na beneen revers bu ci am nga xëy sopp nit sopp ko loolu teg ko fu fu foo tegul kenn mën nga ne sax sa kilifa la et pourtant moom mi nga xam ne nee nga sa kilifa jëf nga jëflante nga ak moom loo xam ne moom yow la gën a jéppi ci àdduna boo koy tuddee doom di sànku de tuddee doom di sànku nga xanaa xamoo leen ne nit nit nag laa wax bu jaar yoon mook boroomam du ñu gëjoo kon nag ku xëy bëgg koo tuddee yàlla na ne ko ne ah diw moo ngi lay tuddee mu ne ah jëf ji rafet na waaye lu ma bett la ndax du ndax du du lii laa ko xamee yàlla ne ah kon baax na luy am am yooyu yëpp yi a bàyyi xel la am na koo xam ne balaa nga koo tuddee na la wóor ni mérité nga koo tuddee ne la wóor ne li la war sa diggante ak moom def nga ko ci loolu nag ñu dugg ci dëj ni nga ko waxee san dëj ki ñu duggee ci bàmmeel moomu ko ndax moom pare na ci ba pare moom walla moo ngi feneen mu ngi koy dundi feneen waaye dëj ji nit ñaa ko moom ni nga koy indee sànq noonu rek lay mais man li ma ci intéressé mooy moom mi nga xam ne nee nañ moom la ñuy dëjal fa mu nekk lu mu fay dund pour wax la ñaanal neew sax il faut ñu xol ko lan motax nga tok japp ba sel julli ba sel taxaw talal sa loxo di ñaan sa borom ndax ñaana sa mbokk taalibe sa julli <laughs> da fa am yu dangereux xana xamone am na ño xamni aya bo jang dana fekk ñukay koy ci ndox yu tang jeur jékki-jékki di retentir yëkkati C'est ne ko déglul la yalla don wax et pourtant sa mbokk bu bax mo lay yéene li di la ko léegi nga nga ko mais amul pour wax la yalla. il est tellement noble gis nga yàlla ko mu baax le nga xëy gaañu nit tàllal loxoom di ko ñaanal da koy wone ko kaay xoolal diw nee yow lay ñaanal nii de waaye du ko nangu nga ne ko ah lu tax mu ne lii doyuma yow say mbir maa la ko maa la koy fay kon nag yëpp fàtte ko maag yow la wala sax beneen nit tàllal loxoom di la ñaanal yàlla ne ah kaay xool kii mu ne kii du diw mu ne ko waaw moom la mu ne moom moo sañ a taxaw ne daf may ñaanal nii moom mi ma def nangam ak nangam jaar ak man fii ak fii yàlla na ko ah moom la de waaye ba ak man lu mu ñaanati lu war a jëm ci ay mbiram lépp laay jël sotti la ko bu ëllëgee nag ñu xool lii yëpp et eh, pourtant xoolal yii yëpp ni ko nit ñi oyofale ni ko nit ñi ñàkkalee fayda te bés bu nekk ñoo ngi ci musiba nekk tax lo xam amna lo na ko xam tay te xolat ko bu baax ah mom de wa pole physique ñom mohammed da melni ni capitaine bi macha allah eh, jàppale nañu bu baaxa a baax waye amna bo xamne man mako bëgg laaj te amna mbokk bu ko laaj te xamna ne la ci ñu bari mu ne yi dal xolu doomu adama bi lan mo koy sabab ak bu ko dalee luy saafara bi feebar bu nekk ak garabam feebar boo gis ak garabam gis nga moo tax xanaa xamoo ne am na waxuma sax jàng jàngoroy xol mais jàngoro tuukur sax am na feebar yoo xam ne bu xase ba dal nit am na aaya yoo xam ne bu ko tudd mukk ci kanam ndax ñaar mën na ci am mën na empirer feebar bi wala mu yóbbu ko ndax xam nga bokk na ci danger yi suratul ikhlas ndax xam nga yàlla li gën la xam te lan moo gën nekk ci wetu yàlla am na fu nit di toll ci feebar boo ko jàngalee lixlaas bu gaañoo yaa ko rey ndax wa yaa woo yàlla ci dimension maximale am ni ko kaay defal ma li gën ah bu ko yóbboo yaa ko yaa ko yóbbu moo tax lu nekk nga seet ko xool ko xam la ca war la ca warul farata la moo tax médecine ci cadre physique c'est extrêmement important ci cadre xel c'est extrêmement important waaye rawatina ci cadre ruux moo tax yii yëpp ku ko maîtriser wul di ci sopp musiba la te mooy mosoon naa ko wax benn mbokk mu posé ma question ci cadre éducation mystique ma seetlu doxalin ba waxele waxin ba ak air bam mu ko waxee taxul mu gën mu tontu ko éducation mystique yittewoo sa éducation simple ba ndax nit bala nga doon nit yàlla nekk nit ba pare gis nga yu jar a bàyyi xel la il ne faut pas brûler les étapes xam nga <laughs> sànq ñoo ngi tudd tiim c'est extraordinaire lan moo tax ci diine ñu indi ndox indi suuf indi xeer yamale ko fa lan moo tax parce que ñett yëpp ay mbokk lañ li tax ñu njëkkee la ndox c'est parce que mo gëna a nit dañuy wax ni 70 à 80 nit ki ndox la kon nak pour ndox laabal lu ko jege war na mëna yom mais est-ce que laab gi ci ndox gi la dépendre wala ci yalla mi garantir ñaar ñi la dépendre lu jara la ci la mais. kon lan moo tax suuf parce que ñoo bokk ndey ak bay ñoo bokk ndey ak bay xeer ci lo ndox di jóge waye xeer ci lu souf di jóge dafa fekk ne ndox mën nga ko jappé produit bu légitime waye souf objectif secondaire lay doon xam nga lutax tax néew la bu suu bu bu xeer bo yàggee korodew ba jeex ci lay doon suuf kon nag dañuy xool leneen li gën a jege ndox rek boole laag moom boo jotul ci loolu xeer doog a ñëw muy ki leen jur ñoom ñaar mais lan moo ñu yem fa parce que xeer jur nit na ko àttan xeer ko jur xeer safara ko jur et pourtant yàlla ci purifier nit amul benn étape bu muy raté bu njëkkee ci ndox doxul mu jaar ci suuf lan moo tax Moussa war a jaar ci désert suuf soosu moo war a mën a raxas tilim tilim mu kër Firawna moo tax ma ne leen bii passé ba ko yàlla di génnee dafa nekk gul góor il fallait moom fu mu ko jaaralee ngóoram mat muy doog a nekk yonent xeer safara jur ko yàlla dem ci kaabu extrême nit ki dund na ba gaañu li war a set ci moom setagul li war a pur ci moom puragul lu tax safara lu tax safara et pourtant yàlla ci kéemaanam safara lu ko jur ngelaw ndax fekk ngelaw ñëwul ak oxygène safara bi du yi bay mën a tàng waaye ngelaw googu lu ko jur Serigne jàngale na ko lan moo tax am na benn gàmmu ndeysaan mu ngi koy indi ci alxuraan ci aaya boo xam ne ñoo ngi fay tudd maaw waaye mu ne foofu kenn du ko firee ndox suuf lu nga koy firee kon nag ngelaw googu ah dafa mel ni ndox a ko jur déparé ci ndox dellusiwaat ci ndox waaye est-ce ndox yi benn lañu loolu nag question la ku nekk nag boo demee nga xalaat ci ba xam. <laughs> bu defee dernière question bi rek thème bi nan lañ ko mën a déggee en un ban bu tey bi bu tey bi. dina dépendre ci kenn ku ci nekk lan nga soxla muy sa njëriñ ci dem bi mais am na koo xam ni tey li mu soxla baatu rituel la war koo mën a dégg war koo mën a cerner war a mën a xam lan mooy rituel ndax ci yoon xam nga ñoo koy indi sànq am na koo xam ni biir julleem ak biti julleem amatul différence parce que sacralité bi mu bi mu jox ay nangul ko lu mu defati comptabiliser muy julli mais pour lolou nga mën ko dégg julli julli entrevue mais entrevue façon ki nga dafa bëgg entretien d'embauche ñu ko téléphone poser ko question ko bëgg poser ah entrevue yàlla dina def la même chose wax ji nag mooy xam nga ñoo koy tudd sànq julli dafa am àqam xam nga daf may def ay ree am na ñoo xam ni bu ñu nee allahu akbar lu ñu mënti def bàyyi nañ ko fa la seen sa yàlla julli kàbbar yàlla loolu rek la jéppi lan moo tax yaa ngi laal sa sajaada foo xam ni wóoru la ni sobe jaaru fa yaa ngi def julli bi julli wu yàkkamti ndax bëgg na rek waxtu gi jot waxtu gi jot na waaye est yàlla waxtoo ko tënk est-ce que yàlla waxtoo ko tënk ak est-ce que tey jii nit ki bu doon seeti beneen kilifa tey jii dana ko nangoo def façon boobu du ko sañ laay bu mu ko defee nii est-ce que li ma waroon compal dana ma ko jox est-ce que poste bi ma waroon jox dana ma ko jox loolu yëpp di ko xalaat waaye bu dee yàlla non amul problème moom moom day baale ndaw ñàkk fayda yàlla bëggul lool nit boo waree julli nangu koo jox àqam demal ba fu mu la wóor ni fii dara jaaru fi demal ba fu mu la wóor ni yàgg moom rekk fa nekk demal ba fam la wóor ne dara du la fa dara du la fa du la fa yaqal su julli nga dogay saña kaba waye nak attention li yeb taxul yalla nangu ko lan motax bu fekke da ngay taxaw ci julli gi di xalaat ci yalla su julli ya na lutax dara woru la ci nga wara taxaw di julli yalla ke manam su julli yàqu na dara wóor la ci nga taxaw di julli di yéemu yonent bi jaar na fii ak yàlla jaar na fële te nga def nànk dañ la nettali de dara wóor la ci lu dul nga sonn sa diggante ak sa borom loo xam ne lépp nga ko moom fi yonent bi teg tànkam yàlla wanaat lu ko nga ci sa sañoo ci def la yaratee na moo tax ni ma koy waxee bëri na yu nit ñi oyofal mais <laughs> dama koy dama koy dama koy xaw a tooñe yenn saa yi suñu mbokk soxna yi yenn saa yi dama gis seen yére yére julli yooyu ñuy sol ma ne ah waa lii moom doy na waat ndax tey jii koo ci newoon solal lii nga seeti diw mooy doon non bàyyi ma sol leneen ah teg ko fan balaa may dee rek ñu ne ma basin kenn mënu ko jullee mu ne ah te nga mën ko seeti keneen munoo jox àq boobu sa borom ñu teg ko fan. moo tax li mbokk bi wax sànq c'est extrêmement important ndax góor gi daf ñu ko jàngal te sax daf ñu ne Serigne Cheikh moo ko ko jàngal kilifa balaa fatu war na waajal boppam na am na koo xam ni. bu tëddee benn façon bi rek yàlla jéppi ko ndax wóor la ba xam guddi gi di nga fi di nga fi yeewuwaat est-ce que fii ngay xippee walla ci kanamam ngay xippe kon nag boo egsi ci kanamam noo war a egsi yooyu yëpp dafa bokk ci li jar a bàyyi xel moo tax buñ ko waree résumer en un walla bokk je dirais plutôt en une expression benn rek laa koy def. xëy na sax munu ma ne dana répondre question bi ndax def di nature colisée bi énigme daf ñu neex li ma bëgg a ñu xalaat ko fekk yeneen waxtaan mooy nit nangu nangu sa boroom wala nangu sa kilifa bëri na yum la mën a régleel waaye nangu yëpp bi ci gën a jafe nangul sa bopp la nit nangu yëpp nangu yàlla nangul sa nangul sa kilifa yii yëpp bëri na yu la mën a defaral waaye nangu yëpp nangul sa bopp ci gën a jafe ñu xalaat ci ba xam yéen nag tey da ngeen am chance ndax gars dañ leen sot waaye nag Logis gis équilibre kon yéen dama leen di poser question su samedi y bëgg comme ko y tontu a fan la ko wa rahmatullahi wa barakatuh. macha je pense que li mu ci wax rek moo ci am solo parce que la voix du Colisée c'est la voix du Colisée amul noo koy définir dañ koy jaajëfal suñu dernière partie rek mooy li nga xamante ni moom la ñu waroon a ubbee muy vidéo bi ñu indi ko rek après ñu bàyyi la nga tëj. bismillah jërëjëf sëriñ.